yaa ngi fa ah. Pambay maa ngi siyaar. maa lay fay baay. waaw lan moo waral tey sa euh, tey waay ci làmb ji. waaw say samay booy ñëw bëri tey. booy sonn samay combat ñoo doon bëri tey trois personnes ñoo doon bëri tey. moo doon teew ñoom safara ñoom jamono gaay ñëw teew quoi. foo toll yow nag. waaw man maa ngi si kawam rek. maa ngi woon si àll boobu léegi man dama xaar. ku dul xaar waroo xaar man xaaruma kenn boobu léegi maa ngi si àll bi. maa ngi gagné samay nag si àll bi quoi di compétir aale. fu nii euh, yan combat nga gis ne moo war a nekk sa kanam ñan ñooy say adversaire. waaw soo xoolee fan yii waruñu passé yàggul di ma wax double moteur wax nañ ma double wax nañ ma Garga 2 wax nañ ma euh, kii Neko Relais bu Ram Sarr. mais mais mais ci ci ci lay yàqoo ci yow lay yàqoo non yàqoo si man man combat du yàqoo si man yàlla xam na loolu. comment yaa Neko Relais combat la de. waaw wax nañ ma Neko Relais wax dëgg fa yàlla mais wax dëgg fa yàlla. ma may ko chance waaw. nga may ko chance waaw ma may ko chance. mais est-ce que ngay laaj li ngay laajte aussi moo bari. non non promoteur si ñoom la njëkkee si moom la njëkkee ñoom nañu nañu may fekk fekk ay deux jours ñu xool ñu ne Baba ñoom lañ soxla ma ne après ah, garaawul. d'accord mais entre temps yow yaa ngi say entraînement. waaw te bu ma bëri benn paa xale yu néew rek combat xale rek. combat jànk rek bu ma bëri benn paa billahi wallahi taala. combat boo xam ne ñu naan tey mu rey tey ñu rey Pambaay laa soxla man Pambaay waaw. jaajëf Pambaay ok jërëjëf